asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen bëgg seen mbokk seen xarit Aladji kii TV ci kàddu gi am mbégte mu mat sëkk nag ngir bëgg leen a présenté xibaar yi fi wadd xibaar yi nag am na compo Real Madrid kii di Arda Güler ma nga ca biir sa mbaxloo ba gars yi Nicolas Jackson juróom-ñaari passe décisive ak lu toll ci daanaka fukki bit ak nangam lu mu dugal loole nekk na mbégte ci képp koo xam ni yaa ngi topp gone gi baneen bi ci des tamit mooy am na yeneen xibaar yoo xam ne dañ ko ci toftal waaye dañ koy commencé nag ak li nga xam ne mooy compo officiel sans kii di Vinicius euh, Junior euh, si banc bi nag ñu am ci kaw nag gars yi libéré Mbappé ba tey moo tax gaa ñi dox waaye ba léegi 4-3-3 moo nekk ci xibaar yi nag ñu gis ci côté bi maanaam ki nga xam ne nag mooy Kylian Mbappé moo ne ci digg bi euh, bu ma juumul soit ci digg bi wala ci côté bi nu ngeen ko mën a waxee baax na mais Arda Güler gars yi eh, moo ne ci côté càmmoñ bi maanaam day fanq fële moom Arda Güler bu ko neexee nag mën nay déplacé wu di def ay baraj barajam di dikkaat bu ko defee tamit maanaam di man a jox Mbappé ay ginaar yu ñor xomb di dellu nag ci milieu bi beneen bi ci des mooy ca côté càmmoñ ba ñu mën faa am nag Rodrigo Goes mi nga xam ne moo jël place Vinicius Junior gars yi ci match bi nga xam ni Real Madrid ak Espagnol bu Barcelone ci kanam tuuti après match en direct ci Aladji Malick TV mu am solo bu baax a baax bu demee ci ñett ñin boole ci digg euh, nga xam ne mooy attaque bi milieu terrain yi nag dañu dellusiwaat buñ fa demee dañ fay am ki li nga xam ne moo nekk lu ko mujlis ci côté ndijoor bi ab paala ci li nga xam ne daanaka moo nekk côté digg militaire bi ñu man fa am ki nga xam ne moo nekk Fede Valverde beneen côté bi nag euh, jàpp naa ne fi mu toll nii carte gaa ngi commencé jaxasoo la moom lañ fa teg maanaam fi mu toll nii ak màgget ak ñaari la ñu teg ci li nga xam ni mooy militaire bu nekk militaire boo xam ni bu saf sàpp la gaa yi gis naa Fran Garcia moom it gis ngeen ko taxawaayam moom it mi ngi ci li nga xam ne mooy côté càmmoñ gi ci Real Madrid loolee mi ngi ci défense bi mboole seen daal attaque bi ak militaire yaakaar naa moom lañ ñëwoon pour di ko jàngat li ma ci gis mooy maanaam euh, Rodrygo Gomes dana mën a gën a am liberté di daw ak di caw caw fu ne mu jaar fa Mbappé dana nekk ci li nga xam ne mooy bain bi boo ko fekkee day baax Arda Güler nag pour la première fois ci sama xalaat merengue yi nag ñoo ma gën a xam seenu équipe waaye nag bariwul lu ma koy gis mu nekk partant ci match bu doy bi ci wàllu liga bu espagnol fële ca Espagne dañu jóge foofu nag dem ci ki nga xam ne nag mooy notre chef international kuy xalam di ca jaayu mooy international Sénégal bi ni ma ko waxee léegi Nicolas Jackson Jackson ah, ci juróom-ñaari bés passe décisif yi nga xam ni runkum yëkkati na ko juróom-ñaari passe décisif ay ginaaru ñor xomb ak li nga xam ni moo nekk fukki bit ak juróom-ñaar séngam yu mu dugal gars yi xam naa ni di ngeen ne Alaaji Malick fu mu jëlee information mais li leer ba leer mooy gone gi bàyyi leen ko xel te def attention ci moom tey ñi nga gis ni mi ngi góorlu bu baax a baax yàlla yàlla lafal ko cat yilimaan attaquant yi quelques séquences de photos yi nga xam ni moom laa leen di proposé nii bii nag ngeen gis ne mooy bi nga xam ne moom lay jiima jël bal bi premier ballon bi nga xam ne daa ka yaakaar naa mooy avant dernière passe décisive bi moo ko defal boppam ndax moo jox bal bi ke ko passe passe décisive bi Ilimaan ngoog ngeen gis avancé tuuti ci beneen image image bi nag mooy wane ni Ilimaani attaquant yi maanaam ñu ngi koy yollu ngar bal ba bii nag mooy bi mu xaañee cabax ci biir kaay mu nekk bit boo xam ne bu am solo la ci moom dana indiwaat ak péexte ci moom ma gërëm leen sant leen ànd beeg ñun am na solo sàkk ci yow abonnement bi yow mi doora ñëw yow mi ko def ba pare cant gërëm ñeel na la ba mas bi dem ci kanam tuuti yeneen information après match Real Madrid ne bougez pas ci seen seen télévision Aladji TV Sport ci YouTube bi lépp fi lay